ba tax nee na mbokk yi wala budda lil qaadi an yakuna aadilan warian zahidan taqiyan nee na attekat am nay melokaan attekat dafa war a nekk nit ku sàmm nit ku sàmm nit koo xam ni dafay segg liy dugg ci biiram lan la waaye bu dee yow fu alal jógee rek nga jël fu alal jógee rek nga jël di nga mës a atte loo xam ne amoo ci sañ-sañ moo tax nee na attekat dafa war a sàmm boppam nee na attekat itam dafa war a dëddu àddina ku war a dëddu àddina bi nit bu bëggee àddina lu ne mën nga ko def ku mucc rek àddina dafa soriwul sa xol waaye nit bu bëggee àddina dëgg te mu dëggu ci moom loo ko bëgg a nax jaaree ko ci àddina moo tax nee bu dëddoo àddina mën na mucc ci lu bari beneen bi ci des nee na na ragal yàlla ñëpp a war a ragal yàlla melokaan yii ñëpp la war mais dafa wax ni àttekat moom lii dafa mënul ñàkk ci moom wa ilaa kenn waru ko tàmm nay xalaat digganteem ak boroomam xam ne bés dina ñëw mu mës yàlla lu ma mës a at keroog dina ko lay ci kanamu borom dossier bu mu tiim dootul gisati ki mu jàkkaar lool waaye yàlla la xelam di def naka lay jëfandikoo lii ëllëg ci kanamu borom loolu ku ko dul xalaat nee na waroo nekk àddina nee na war na nekk itam ku doylu parce que àddina bii nag doylu rek a fi nekk loo yaakaar ne bu ma ko amee dinaa am dal nit am na ko daw di wuti leneen mais doylu mooy koom mu dul jeex ku doylu kenn mënu ko jënd waaw ku doylu kenn mënu ko jënd ñëpp la yàlla xéewale xéwal yee wutu rek doy loo xéewal googu la نينا فوالله الذي لا إله إلا هو لن يدخل مع القاضي قبره أحد أو أحد أحبائه ولن يقف مع القاضي بين يدي ربي أحد أو أحد أقربائه وأصدقائه نينا يوم من دينك أحد من دي من لي لا يبير من لي باخي باي الخينة والله بس دينا نيو ñu dugal la ci fax mu xóot fax moo xam ne yow da nga fay nekk kenn du la ca sa mbokk du ñëw sa xarit du ñëw sa am di jàmm du ñëw sa dëkkandoo du ñëw ñu la daan influencé doo leen gis yow kenn képp ak sa bàmmeel kenn du la wéttale mu ne bàyyil xel loolu bés bu tara ngi noonu beneen bi ci des di nga mës a taxaw ci kanamu yàlla muy réglé waa dossier boo mës a réglé dina ko réglé nee na te bés boobu sa xarit du taxaw sa soppe du taxaw bàyyil xel ne bés dina ñëw ñëpp daw la du yegg sax bàmmeel am na ñoo xam ne levée de corps lañu dee amoon nga solo ci ñoom ñu dem ci armel ñoom duñ la gunge ba armel mukk ci àddina parce que jàpp nañ ni seen grâce topp sa bànneex ba alku sax mën nañ ko dégg mais topp bànneexu jàmbur ba alku loolu waye di la nee na bare waay na mu dal attikat la moo tax nee na maa ngi leen di dénk ayuhal qudaatu wala taxkumu illa bi xaqin wa adl bañ leen bu leen nangu bu leen atti lu dul dëgg bu leen atti ci tegu ko ci maandu te mën a doon xam leen ni yéenay wéet ëllëg ji lay seeni mbir soxna Aïcha nee na soxna Aïcha nee na maa dégg ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ni yuqta bil qaadi al adli yawma al qiyama fa yulqa min shiddati min shiddati al xisaabi maa yawaddu annahu lam yaqdi bayna snayni fi tamrati soxna Aïcha nee na maa dégg yonent mu wax ni attikat bi gën a maandu ci àddina nee na atte bu sévère la koy atte dem ba rit na wallahi bu doon tey ñaari nit yu jotee ci benn tàndarma sax duma leen àtte sama yoon bi ci ne rawatina may àtte ay dossier yoo xam ne ay milliards ay dossier yoo xam ne suuf yi dul jeex la ay dossier yoo xam ne ay faat bakkanu jàmbur la te décision boo ci jël rek dina jeexantal ba mën a yàq dundu jàmbur yow buur bi subhanahu wa taala moo waxal ci gën a maandu ci àddina ci gën a jub ci àttikat yi di yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam la suñu borom wax ne wa an ixkum baynahum bi ma anzala allah na nga àtte sama njaboot ci li ma la àtteloo wala tattabii ahwaahum bul topp bànneexu gaañi atte li téere bi wax te bañ a topp li neex gaañi loolu mooy attekat bi tegul ci loi bu la kenn influence c'est comme yonent yàlla Muhammad ak nangu maandu moom la buur bi di dabaatal naan ko jubalal maandul bul topp bànneexu gaa fa kay fa ku amul maandu te googu ak garanti googu fan nga jël buur bi ne ko wax daruhum an yaftinuuka yàlla ne yonent bi moytul ma sa gaañi influence la daañu la fitna jéem laa puus pour nga àtteel leen li nu bëgg ñoom mu ne ko lankal waxdaruhum an yuftinuka am baadi ma anzala allahu ilayk ñu ngi lay bëgg ngay jàng tuuti ci li ma wax ne nii la mbir mi di tëdde ñu ngi lay jéem a puus pour nga wàcc lankal da nga moytu leen ñi fi yëngul ci seen côté buur ne ko euh, fa in tawallaw faalam annama yuridu allahu an yusibahum bi baadi dunubihim buur bi ne ko bu boo jëlee engagement def loolu nag daanu la woon ginnaaw de waaw daanu la bàyyi am na ñoo xam ne keroog boo taxawee pour nga jubal nga maandu nu bala buur bi ne ko jëlal bu nu la dëddoo woon la ginnaaw neel ndokk seen musiba ngi leen di dal aw mbugal yu ma na ma tuur seen kaw te ñu ngi sa biir soo leen waxee dëgg bi ñu dumoo yu la wéet à ma dumale ne ko demañ ñëppeewul seen côté bu leen topp ci loolu la nekk te loolu àtte yu yooyu la ñuy am juste mënu ko dàq ba waaye juge àtte na ba tàyyi ci ndakaaru ñu jël ko yóbbu ko ca àll ba sanctionné ko parce que àtte bi mu àtte buur ñu sanctionné ko yàlla ne yonent bi jëlal ñu sanctionné la yóbbu la ca àll ba nga dund fa dund bu met moo gën ëllëg ñu sànni la ci bàmmeel ñu di la fa duma te kenn du la wéttali parce que wéttu la àddina bu taxee nga jënd sa àllaaxira da ngay moo tax àtte kan ñëpp ko waroon yërëm ndax li buur bi jeexale aay bi ne wa inna te ëllëg yow yaay wéet moo tax kenn nangu ñu influencé ko ba mu wàcc dossier bi famille am yëpp waroon a toog di ko jooy àddina ak àllaaxira parce que dañ koy alal moo tax ku nite biir sax bu ñu la woon kaay ñu dénk la àtt ne lànk naa parce que jóguñu dañu lay teg nga nekk juge bu maandu jël benn politicien bu yilib la di la jox ay directive nga di ko def wa illaa mu sanctionné soo gëmul yàlla dëdduwaa dina da nga koy nangu moo tax buur bi ne kon nag euh, ñu ëpp ci nit ñi duñu jub duñu baax te ku nangu nu yóbbaale la wa man xakama fi nnaasi bi gayri adlin فقد قال فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعجلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبير خبيرا بورتي نانا man day maa ngi leen di dénk ngeen maandu ci ni ngeen di àtte képp koo ndax sunu borom dafa wax ci alquran ni ya ayuha alladina amanu kunu qawamina bil qist shuhada lillah yeen way gëm yi na ah, mu ne na ngeen sax ci njub ak maandu ci di atte ci dëgg di atte ci manu di seedi ci dëgg di seedi ci maandu walaw ala anfusikum donte donte safaan bi seen kaw la jëm maanaam tey yow yaa daanu yow yaa juum yow lañ war a atte ci sa kaw parce que wàcc nga yoon bur bi nee na su boobaa nangul àtte bi daanu ci sa kaw même su dee yaay ministre bi même su dee yaay député bi même bu dee yaay président bi nangul ne tey yow yaa juum dañ la war a sanctionné am nga gàttanu texe ba kii sanctionné du la sanctionné mais bu ko def bàyyil mu sanctionné la moo tax buur ne boo dëggoo nangul dëgg bi bu dalee ci kaw ñu sanctionné la awil walidayn wala sa wayjur sa wayjur moo juum ñu yóbbu ko ci yoon mu na àtte bi nee bu ci xool moomu jur de na yar bi dal ci kawam wala aqrabin wala sa mbokk la wala bu dee alalam ju bëri moo tax nga ragal ko ba jox ko dëgg wala dooleem ju bare moo tax nga ragal ko ba jox ko dëgg na nga xam ne moom dina jeexal te man du ma jeexal sanam dina jeex balaa yàgg te du ma jeexal ana ñi fi mosoon a nekk ay président di joxe ay dogal seen signature balaa ba la tul ci dara luy dox ci réew léegi nag yow bu la taxoon a yoon foo jëm tey kadaalika ñii fi nekk seen signature li dox ci àddina kenn mënu ko xam ci bëri doole waaye ak diir bu néew dina ñëw seen signature dootul valable ci dara luy jox ci réew bu ñu la wàcculoo yoon yow alkool bés boobu yow moo tax buur bi ne bu ko naw su dee koomam la wala kàttanam la xamal ne man yàlla duma ma jeexal loolu te moom dina jeexal su dee dafa ndóoli daa ñàkk da nga yërëm ko bëgg ko jox dëkk xamal ne bés nga ñëw daa wéet te moom du la wéttale mukk ci dëgg goo ko war a saanu sa kaw moo tax nit du ñàkk lañ ko war a joxee dëgg am am lañ ko war a joxe dëgg ko war a jox dëgg parce que daf ko rek buur na man maa gën a yell ñëpp ne ko kon bu leen topp bànneexu gaañu ba ñu leen di influencé di leen loo ba ngeen jëng en temps bi bu leen ko nangu fii boo nekkee buur yow kenn du la àtte kenn du àtte sa famille sa doom sa rakk kenn du leen àtte sa soxna kenn leen àtte ak lu ñu mën ne def waxuma ñooñu waaye ku bokk ak yow parti sax daanaka kenn du ko laal ba tax am na bés waxoon naa ne man de budul woon ak budul woon ak rapport yooyu di génne man damay wax ni ñu nu fal ay malaata lañu parce que ñoom du ñu mooy ah kenn du leen topp ku ma ne ñii xanaa ay malaaka lañu waaye bu rapport yi génnee ci ngay gis ay ngandi njuuñ daaj waaye protection moo tax maa ngi jeexalee ay dossiers yu rëy yoo xam ne am na ci Sénégal ñuy tudd quatre-vingt-quatorze milliards ñu ci tuumaal ay nit yoo xam ne nee nañu dañ ko jaaralewul yoon ba tey mbir ma coow nañ ko luy jege at ñaari at bépp juge bu mu tegee sa loxo xalaatal sa digganteek sa borom nga àtte ko mu jaar ku am dëgg jox ko dëggam ku amul dëgg sànni ko ca àll ba bu la jaral sa ñu ngi fiy tudd ay dossier wu pétrole yoo xam ne ay six mille milliards la ñuy tudd lu mu yàgg yàgg ci loxo àttekat lay mujj waaye àttekat bu mu mujj sa loxo xalaatal sa digganteeg sa borom bul xool ni kii rakku président la bul xool ni kii soxla président la bul xool ni kii partisan président la xoolal sa digganteeg sa borom nga àtte mu jaar yoon su fekkee moo am dëgg nga jox ko dëgg bu amul dëgg nga xañ ko dëgg dañu bàyyi porte presse bi ñu nekk léegi dossier yëpp ci média yi lañ koy réglé dem ci télé yi di débat rek kii moo am dëgg kii amul dëgg léegi justice lan lay jëriñat lan lay jëriñat dèjà ñoom dañ leen di influencer parce que am na kilifa yoo xam ne bu ñu waxee ci yenn dossiers yi bon boo dajewul ak ku xaw a dëgër tuuti soo moytuwul di nga yàq xam-xam di nga yàq pas-pasam moo tax la jaad woon yenn dossiers yi kenn waru ko débattre ci télé su fekkee yegg na ci loxo justice mais malheureusement ñoom loolu xam nañ ko mais du ñu ko def parce que seen bakkan bii la ñu gën ak affaire politique